mbokki internet yi nga xamante ni yéen ñuy safoo di ñu topp fii si Bprod Média amaat mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne mooy si marché bi ñëw laaj ñi nga xamante ne ñooy am di jàmm seen xalaat ak seen gis-gis si match bi nga xamante ni day dox si Sénégal ak Guinée nee nañu boutiquier yi la ak ki nga xamante ni mooy lebal ma ñoo war a daje tey man waxuma ko du samay wax gars yee ko bind waaye mbokk yi balaa boobu dañuy dugg si biir xool li nga xamante ne moo di. am di jàmm yi laaj leen naka lañ gisee li nga xamante ni moo di match Guinée ak Sénégal ak ñaata ñaata moo war a dox si match bi ak match bi naka la war a mën a demee tey ci Guinée Sénégal classement beeg yooyu Zé rek mooy topp ñu dugg xool am di jàmm yi. Sénégal tey mu war a zéew Guinée tey match bi naka nga ko gisee. Guinée dañuy ñibbi seen dëkk. dañuy da ngeen ñibbi. di ñibbi eh, de. <laughs> Zé match bi neex na ba pare. dina yooyu tey di ngeen ñibbi loo leen mën a lekk ci mboroxe rek lekk ngeen ko tey ngeen am 2-0. mais nee nañu jàll boutique la ak lebal ma ñooy daja tey. sii jàll boutique day xaar day ñibbi tey kenn du ko fay ay borom. <laughs> kon noonu lay ñibbee saa fay ko borom kenn ko fay. deux yi rek lañ koy may garaaw mu dem. deux kan mooy dugal kan ak kan. si nag dama leen jot dama leen xamul loolooy sama problème. yow ñu ne ma xam nga ko. est-ce que Nampalys Mendy ak Pathé Ciss. Eh, eh, yow wax nga ñaari jour de clé léegi classement bi kan ak kan Aliou Cissé lu mu gisee. Aliou lu mu gisee baax na. dégguma. <laughs> lu mu gisee baax na moom nañu andil ndam rek. lu mu gisee baax na lu mu gisee baax na. Eh. parce que bi moom rek lañ toog xam nga defoon na 3 3 ñëw bi ba lan la def nii wala 4. yaa ko kon nañu may 2-0 rek për yi duñu leen dóor lu bëri suñu mboqa lañ. ah suñu <laughs> mboqa lañ mboqa. 500. <laughs> waaw. yii la lii lan la si kaw ak si loxo ak fan. non bopp loxo ba affaire yi mi ngi jar. ah waaw sant yàlla mag si jar na ko ndax gaa yaa ngi jënd. mais Sénégal la war a dóor. tey ah yéene naa ko kat de moom incha allah. waaw yéene naa ko. kan dama ko ko rek. xam ah, nga ah dama ko ko yéene. waaw nañ boutique yi la ak lebal ma ñoo war a daje. non ñoom wax yooyu yëpp pour wax leen neex la rek xam ma waxi comédien la ñuy def rek. waxi comédien si leen nekk rek quoi. waxu comédien la waaw. mais tey kan ak kanam yow kan nga jàpp ni moo war a dugal tey. non Ismaïla Sarr moom dina dugal ba soobi suñu borom bi ak Sadio Mané. Sadio Mané waaw ñoom ñaar ñoo war a double. waaw ñoom moom dinañ dugal moom. ah dinañ dugal. waaw incha allah. mais ñan ak ñan ñoo war a dolli yeneen deux bi yi. yeneen deux bi maa mën na mën na yem si ñoom ñaar mën na yem si ñoom ñaar. waaw classement bi kan ak kan la. classement bi moom xoolagu ma ndax sama téléphone sama conseil dafa jeex. ok Aliou Cissé lu muy joué. Aliou Cissé 4 3 3. Aliou Cissé dégg naa day football de tey. tey ah Aliou Cissé buy football moom nan lay footballé. ah ah loolu moo ci. non xëy moom boo déggee ñu Aliou Cissé day football pour entraîneur moom mooy classé. ok bu classé classé bu baax moo football. ok bu mbaa si yàqoo si moom la bu si classé bi la rek. ok ok mais kii lan lay joué euh, Ferland Coly. Ferland Coly Ferland Coly moom. Sénégal ñaata lay door yow. yii loolu bii la. cinq xam lañ naan cinq. ñu naan ka saa yaata yaata <laughs> saa yaata yaata. wala. waxuma loolu de. ah. ñu ne jaaykatu bitig bi la ak lebal ma ñoo war a daje. yii sénégalais maa xam nga leen Sénégal day fay bor waris la waaye lépp moom mënu koo fay mais bii moom dañ leen di fay ba wisal leen. dégguma ah bien sûr. dañ leen di fay xam nga leen Guinée du gagné mais bu doon jéem a gagné sax du jubilé dañ koy rey mu dee. lu tax ah ah ah loolu tamit. ma sekkete sekkete amu fi place. ma sekkete ceebu jën ak futti. waaw ceebu jën futti waay. ma sekkete. gaal bu ngeen ko jàpp eh, wuy wuy eh, ah. waxal rek. nga ne. ma sekkete. ayi aye ma sekkete. Medina arabi mbasekete fayu Sénégal war a daje ki nga xamante mooy Guinée yi seen mbokk yi nee nañ boutique yi la ak lebal ma ñoo war a joué léegi loo woon ma wax ah, naka nga gisee match bi ak li nga xamante ni moo di senegal di champion du monde champion safra champion d'Afrique war a dajeeg yéen. seen titre yéen xel seen titre. Ah, man man laa de. yow Guinée nga. kii Guinée la kii Guinée la tey moom. tey moom tey tey tey jaabare la leen def tey ay jaabare ñii ñii tey ay jaabare la leen def ay jaabare ñii tey ay jaabare la leen def yéen bu leen jaabee. Eh, Sénégal yi laa mooy dóor 3. waaw 3 ay dugal tey. kan ak kan mooy dugal en tout cas dina dugal. Ismaïla Sarr dina dugal. keneen ki na xaw ma. yow yow yi nekk fii di wax doo faral Guinée te noppalu. man Sénégalais la ma xamuma Guinée sax Sénégal laa juddoo moo tax. mais yow mboro ah. maafe laa añee léegi. maafe nga añee waaw. Sénégal Guinée tey. waaye Sénégal jàppale ay lekkatu mboroxe la. <laughs> ay lafur yi lekk ay lafur yi. tey tey match bi <laughs> tey tey tey match bi. Sénégal qualifié na. kii du kii du kii sénégalais la kii malien la. kii malien la kii malien la. Eh. tey cinq laa la may cinq laa la may cinq. Sénégal mooy Sénégal xanaa gisoo match yu paase cinq wala. 5 0 laa la may 5 0. yow kan faral yow kan Sénégal laa faral parce que sénégalais la. sénégalais waaw sénégalais la ah doo xool doo xippi. mais yow gis tax ma lay laaj. waaw waaw damaa nuroo Guinée. waaw nuroo am na. yow am na nga nuroo am nga am ki nga nuroo kii malien la bu wax mais yow lan nga. <laughs> Eh, Guinée yee waa Guinée la Guinéen la que sénégalais tax. laa juddoo fii laa màggee. am carte d'identité sénégalais. ok am nationalité sénégalais lépp. ok yow tey daal Sénégal ngay. Sénégal waaw Sénégal laa faral parce que Sénégal ngeen di allah kan ah, parce que non Sén am euh, naa sa. Mané may benn. Iliman euh, moom euh, ak. non may ma jàmm waaye Sall non garaawul garaawul garaawul garaawul. non ñëwul kan ak kan la jëloon rek naa la rek 5. waaw 5 incha allah cinq allah 5 du dugal. non rek laa la may. ndax dina dugal ma ne la 5 laa la may xaw ma nag day dugal ak dugal. non non même la wax classement. dina dugal wala dugal non même cinq rek laa la may. ok may rek. incha allah. ok eh, beneen mooy Sénégal nga soxla. yi yaa de gars yi nu ma demee noonu. tey dañuy waaw waaw. kan a war a dugal tey. tey Sadio Mané day dugal Pape Matar Sarr day dugal. ay Habib Diallo day dugal. ah ah Seck Koyaate day dugal. gars yi ak lebal ma ñoo war a daje tey. nee na ñun ñoo dàq leb. ñoo daaxal leb ah. waaw leb comme. ah boutique ak leb kay xam nga li ma bëgg wax. Ah, en tout cas daal dañ leen di gagné. ak nu mu mën di demee. Guinée suñu nooy neex la ñun ñoo leen mën fuuf. waaw waaw fu fu leen fu leen dajee dóor leen yaa gis. ok fu ñu dajee Guinée dóor leen xoolal lii rek. ah yow li nga jot a dóor si nga doon génne nii. mooy loolu xoolal 4 1 5 2 3 1. ok waaw du <laughs> def mbokk Guinée yaay. comprendre yaa ngi sib. mais yow Guinée waaw. du su nooy neex lan quoi. da leen di yokk leen petit cola yi yokk banana yokk pom yi. te Guinée yokk nañ lépp jënd bala ñu leen a dóor ba noppi. gis nga li neex la. petit cola yi. ndeysaan Sénégal lii rek a fi am. jaama jaama jaama bala ñu lay doon te bii rek fi am jaama bala ñu lay doon ndox. ñu war a dajee ñooy waxtaan seen biir. jàllal fële jàllal fële banana baa ngi ne ma ngay jënd ci banana jënd na banana ba pare jënd na banana ba pare waaw waaw bala ñu lay doon ndox bala ñu leen doon dóor bala ñu leen a duma ñu jënd ba lu ma oh, na ko dollil beneen bala ñu a oh, dëkku teraanga bi ñuy wax mi ñoo war a daje ñuy waxtaan ñoom it ndeysaan gis nga Sénégal Sénégal teraanga la dëkku teraanga la ma ngay jënd bëti jóge fa jënd banana xool orange xool pomme o oh, xool raisin ba pare waxtaane ko g avant match bee commencé Sénégal bi ñuy wax ne dëkk teraanga la tey gën na wane boppam waaye di ñaanal yàlla ngeen am jàmm sama gars yi ñi ngi kontaan jërë ngeen jëf mbokk yi <laughs> moom rek laa ci xam nag nga ne kan mooy g classement bi kan la Sadio Mané rek laa xam Sadio Mané kese nga xam ñi ci des miinu ma leen moom Aliou Cissé lu ah moom mooy sunu kii coach. ah waaw. Tony Silva lu muy jël. bokkatu. Habib Boy. ñoo ñëpp bokkatuñu léegi. waaw kon classement bi kan ak mi kii yu ma leen nag moom wax dëgg yàlla. xamee woo leen quoi non non. tey naka nga gisee Sénégal Guinée. ñaata ñaata la score bi. 3-0. 3 nga gis. waaw pronostic bi loolu la la wan. loolu la ma wan da nga wala. lu ma leer. bokkuñu ci ñun. 3-0 la Sénégal di dóor Guinée. waaw kuy dugal bii bi. Sadio daal dina dugal. waaw ak kan. ak euh, am na ku ku ci sant Ciss. Ciss Saliou Ciss. waaw ak Nampalis. ak Nampalis. waaw kon kay yow xam nga classement bi. classe yal ma milieu terrain bi. Cheikh Sarr ak kan la. ñoo loolu Cheikh Diallo. loolu moom jéggal naa jéggal ma ko. 4-0. 4-0. 4-0 mais Guinée ngeen di am de. ah Guinée ngeen di am. non non waaw ah, Guinée lay ñoo mën Guinée. mais bi kan ak kan la. Sadio Mané. ak kan. ak euh, Habib Koli. ak kan. ak euh, Ismaïla Ba. Aliou Cissé lu muy Cissé. Eh, Aliou Cissé kooku daa xam <laughs> tey Sénégal war a daje ki moo di Guinée naka nga gisee équipe bi ak taxawaayu xale yi. Ah, en tout cas moom équipe bi moom kontaan nañ ci. Mm-hmm. suñu attaque diis na suñu milieu baax na suñu défense baax na Lamine Camara dina dugal Sadio Mané dugal su eh, kii nu mu tuddati kii Sarr gone ga Sarr lu mu tuddati Ismaïla Sarr bu neexee yàlla dañuy basket gi ne score basket lañ koy jox. mais tey tey classement bi naka nga gisee li nga xamante ni moo di xale yi. la ñu indi ñoom Pape Gueye ñooy joué waat. dëggal ma ndox du bàyyi yoonam man wóolu naa sama attaque wóolu samay flan en tout cas samay attaquant du leen dugal 4-0 lay doon. 4-0 lay doon. ndax gën a ñun ñooy bête noire am du nu moroomam. 4-0 nga gis yow. 4-0 laa gis. score basket lay doon. ok mais tey ma li nga xamante ni moo di équipe bi Aliou Cissé lu muy mu la Aliou Cissé du G la day toog yabal xale yi ñu def lan daan def. ok classement bi kan la. Sadio Diédhiou. Hmm. teg ci Lamine Camara. Hmm. Ismaïla Sarr. Hmm. bu Habib Diallo dugalee mbay Abdou Diallo it baax na. moom daal nan leen basket. milieu terrain bi kan ak kan kontaan naa ci milieu bi. milieu bi ci boppam ah si bi dama ci kontaan. Doudou tey dina lu jubilé lu rëy. joué huitième gagné quart de finale dem finale bu soobee yàlla. man waxatuma leen lépp ay baax. mais tey gis nañ li nga xamante ne moo di équipe nationale. Cheikh Kouyaté day xaar jouetul ak ñenn ñi nga xamante ne ñooy anciens yi xale yu ndaw yi léegi ñooy dugg naka nga gisee xale yi. senegal nekkatu kuy dellu gi naaw dafa gagné coupe d'Afrique gagné CHAN bi gagné coupe d'Afrique bu mag bi am nañu cinq coupes mhm. ñu nekkatuñu kuy dellu ginnaaw football bi fu mu ne ñun dañ ko téye. te yal na leen yàlla dafa cat ñu dem ca kanam. Mm. man daal final laa gis. final nga laa gis. loo woon fa woon. tey 3-0 nga gis. kan ak dugal nga ne. score basket lay doon 4 lay doon. 4 lay doon. Habib dina dugal. Habib Diallo. Sadio Mané Lamine ak ak Nampalis. ak waaw. Ah, jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ko noonu euh, liñ ngeen jote indil tey ci li nga xamante ne moo di Guinée Sénégal mbokk yi ak am di jàmm yi gis ngeen ko noonu da lépp day wane ni Sénégal dëkku teraanga la ak li nga xamante ne moo di mbokk yi lépp rek fii si fair play lañ ko def gis ngeen mbokk yi ñu ngi noonu waa Guinée ak waa Sénégal waxtaan nañu ba juboo ci li nga xamante ni mooy si match bi war a dox Guinée Sénégal jërë ngeen jëf mbokk yi lii lañ leen indiloon di leen jox di daje ba beneen jërë ngeen jëf